wàllum musique la parce que musique dama la ci dégg yaakaar naa yàgg Youssou Ndour am ngeen ci relation mhm. yàlla dogal Youssou Ndour nekk international ñëpp xam ko mhm. nga am doom macha allah seede yàlla mu Youssou Dieng yàlla def tamit ñu gis ko ci ginnaaw Wally Seck mhm. secret boobu ni ngeen accompagner ay nit ba ñu réussir seen kii sa diggante ak Youssou Ndour su ma ci ñëwee ak diggante Youssou Wally ak sa doom Youssou Dieng sa diggante ak Youssou ma jëkkee ci non Youssou xam nga dafa nekk xale ñu bokk koñ d'abord bon mu nekk xale di ma seetlu di ma remarqué ba am cër bu ma jox. mooy mhm. li mu naan man maay référence am xam xale bu lay wax loolu yaay sama idole. ndeysaan dama mujj dem ba dama mujj am cofeel ci moom. Mhm. su ma voyagé bu ma demee ba ñëw day ñëw kër ga parce su ma xaritu rakk la Aziz. Mhm. su ma sama valise dama koy ubbi génneel ko déjà li ma koy jox pour li muy joué ji ngoon pour mu correct. muy waxtaan ak moom. gëmloo ko ni tamit dina am loo loo war a doon ci musique bi ndax nii nga commencé boo ko continuer dafa am loo loo doon daaw ko gëm sax mu ko dafa reetaan te boobu xale la ma lay wax bu nee ba am dootuma la gisati bu ko mu gën a reetaan ni moom la waxtu loolu mukk ci àddina uh-huh. man ko di nga dem ba xam ni kenn du xëccoo ko yow dara ndax li ngay def da nga ko mën te da nga ko bëgg dafa sérieux ci li muy def Youssou ba pare am talent mm-hmm. baat bi neex mm-hmm. mu sérieux mm-hmm. bu wàccee li muy liggéey quinze minutes après na ko fekk seen kër papaam daf ko daan xaar ci kër ko bu tardé da koy dóor ndeysaan xam nga mhm. ba pare tamit xale li koy jox jom mooy nga juddu xool sa situation famille dama koy yokk dama koy yokk waaw am na solo moom moom loolu surtout moo ko jox mhm. doole mhm. ma koy jàppale di ko conseiller di ànd ak moom fu nekk fu ñuy ñaaneeg ñaanukaay yeeg di ko booleeg ay nit bu mu amee soirée ma ñëw taxaw lu ma ci man def ko ci buy dem lu ma am jox ko ko di ko encourager mais mu bàyyi ci xel am dafa intelligent ba yàlla jàppale ko ba mu doon li mu doon boo xëy na tamit loolu li koy waral mooy yéene dama nit boo ko yéenee waaw boo moom li muy am mun na ko am dëgg la yéene boobu mu amoon ci Youssou moom te it Youssou dafa am lu ñu bokk Youssou Ndour ndax suñuy maam ñoo dëkkandoo Tiwaawoon am lu bari lu ñu sëq loolu ñun fekk wuñ ko xamuñu ko mais nettali nañ ko mais yaayam xam na loolu ndax yaayam moom saa yi ma ci kër gi daf may jox cër dafa ma dafa ràññee moom yaayam moom réussite bi papaam bokk na ci mais yaayam surtout. Hmm. dafa ràññee. dafa ràññee daan wax kër gi du ma bàyyi kenn ñëw fi. Hmm. dama daan fekk yuufu tëdd sax. Hmm. mu yee ko ni ko Pape Dieng ñëw na jugal nga wax ànd ak moom. may ànd ak moom. di ko yóbbu Faas. ay kër Mbaye Guèye kër Boy Naar Fall. fu ci nekk foo xam ne rek mën na fa jëlee dara. ci wàllu xam-xam. waaw mu ko fay yóbbu. ba finalement mu dem ba gëm loolu ba am li mu am. loolu nag ci moom la. xëy na li mu gis ci man moo ko xam. Youssou tamit ak Waly. waaw parce que foofu tamit la mu fi mën a wax diggante yi parce que ku ne Youssou ne Waly. ne ay parents la ñu. Youssou Youssou Dieng ak Waly. xam nga Waly. Uh-huh. ki jur euh, maamam. Hmm. bi jur yaayam. Uh-huh. ak sama maam. Uh-huh. ay mbokk lañu. parce que maam mi ngi tudd El Hadj Diouf Ndiaye Kour. mu ñëw kër ga bi may xale di sept cent maam. Mhm. comme maamu ëmb seen rek. xam nga mag yi ay mbokk la ñu. waaw ñoom ñoo daan fréquentante. dëgg la. sama maam ak maamu waal yi. mbokk lañu ki jur baayam laa wax. ki jur ki jur coon. non non non ki jur maamam. ki jur maamam. waaw. ok cest dire euh, papay yaayam. papay yaayam papay yaayam. papay yaayam. Mhm. muy El Hadj Diouf Ndiaye Kour. ja euh, soxnaam la ñuy tuddee euh, yaayu waali. ok muy Kiné Diouf. muy Kiné. Mhm. ndax Fatou Diop Diaga lañ ko tuddee. ok Fatou mooy Kiné. Fatou mooy Kiné moom ko tuddee parce que mu daan soxnay maamam. ah kon turu Diaga wi moom turu du du du Papa Thiet. non Diaga Fatou Diop Diaga la tudd. Fatou Diop ndax Diaga ko jur. ok xam nga ñoom euh, dañuy dañuy waaw mbokk lañu ñu kon. dëgg la ndax seeni i maama bokk. Mhm. moom laa la expliqué. Mhm. mbokk googu nag day xeeñ te day feeñ. Mhm. ndax ki nga bokkal bu leen jàkkaarloo rek day feeñ. dëgg la ndax dafa am loo leen di nuru. Mhm. li ngeen di nuru nag moo leen di boole. te man noonu laa meloon nag coon. coon bi mooy Abdou Diouf dafa ñëw ni ma dafa am lu ma bëgg a def te du ma ko wax kenn yow laa ciy jëkk a waxtaanal man na ko lan la mu ne ma damay Abdou Diouf lu sa xalaat man na ko def ko coon damay waxtaan ak moom. bu daan jouer dama daan dem fi muy jouer di discuter ak ñoom puisque moom tamit talent la donc loolu dafa yàgg man dama collaborer ak waxtaan ak moom ba tàyyi ci li muy def léegi kon loolu moo indi diggante Wally ak Youssou mbokk gaa xeeñ xam nga vedette borom tur ak borom teraanga ak borom juddu dafa am nooy ànd moom am na jikko yoo xam ne boo ko amul doo ñoom ou bien dañu la tànn ci ñi ñuy tànn ñuy tànn ndax ñoom dañuy tànn mhm. d'abord da nga leen di dànd Mm-hmm. bu ñu lay gis toujours. Mm-hmm. teet nañ xam sa la dëgg la. ndax ki nga ñëpp topp di ko wax li ko neex. Mm-hmm. su fekkee dafa dajeeg koo xam ne lim lay wax dina wuteeg la leen ñeneen di wax da koy seppi ci biir ñooñu. dëgg la loolu moo tax ànd ak vedette ak ànd ak borom tur man loolu yàgg na. ku siiw ci dëkk bi ci sport yëpp da ngay fexe sax pour xam ma pour nga ànd. dëgg la ndax façon bi may àndee ak yow. bon du ma ànd ak yow ci caaxaan dama lay wax d' abord affaire caaxaan nañ ko teg booy caaxaan ni demal caaxaan sa caaxaan. Mhm. après ñu daje. ñu daje dañuy waxtaan ci essentiel bi. Mhm. donc qualité boo ko amee. Mhm. am personnalité. ñoom ñu lay wër. tu n'as même pas besoin di leen seeti ma am na xarit yu bari yoo xam ne ay milliardaires lañ mais du ma leen seeti. la te milliardaires lañu de. mais du ma leen sax gis. ñoom dañ naan ma mais qu'est-ce que la dara dama lay dànd rek. kese <laughs> waaw dànd moo gën a wóor Youssou ban témoignage nga ma mën defal ci moom en tant partout sax ah. parce que ci musique bi ci. Euh, non parce que série yi maanaam macha allah. bon xam nga man une partie de lui man maa ko yar. après du Ndiaye Rose yar ko. Hmm. mais bu nekkee xale daf daan ñëw kër ga ñu may seet si ak kilifa yi fay ñëw. Hmm. ak sportif yi ak vedette yëpp daf ko daf leen daan gis. Hmm. mais ànd ak ñoom ñu ñëw ci kër ga du ko ràññee du ko xàmmee. dèjà ñoom mbéy yi ma lay wax ñoo ko ngénte. ak ñoom Lamine Diack ak ñoom Mawad. sama xarit yooyu. ñoo ko ngénte. mu màgg seen kanam. jóge fa nag du Ndiaye Rose yar ko. ak du Ndiaye ni mu mel. Mhm. dina am ay yu mu ko jox. Mhm. xam nga dafa am loo xam ne boo gisee say parents il faut nga topp ci loolu. Mhm. personnalité bi d' abord. ak sérieux bi. ak tamit nag compétence bi. mu am expérience def voyage. gentil généreux ouvert. am assistance. sociale de ses parents et tout donc noonu rek la mën mel am naa benn xarit maradien daf ma gis barki démb ni dafa dajeeg moom ni ko boo melul woon ni nga soo melul woon nii nga mel dañ lay rey hmm. ndax tu es obligé d'être la parce que mara dafa ndax bu daan ñëw sama kër Youssou daf ko daan wax boo hmm. hmm. naan ma man loolu moo tax dafa am fu mu la teg parce que saa yi moo waxee mu ne ma lu ne nga ko defal ci àddina te fayeegu la ci dara donc xam nga yooyu tamit dafa doon ay wax yoo xam ni c'est du baume au allah am na solo ah. defe naa ne moom mbir yi mën nañ ko yemale foofu. mooy julli jot na waaw julli jot na te julli moom ah, mooy moo ëpp solo lépp. waaw moo ëpp solo lépp kon a ah, euh, boo amoon tey looy tàggatoo ñi nga xam ne ñoom looy suivre ci Equivox TV loo leen di tàggatoo. mais ñaanal rek li ñuy dox ak li ñuy def ak li ñuy taxawal yàlla na ko yàlla sottil amiin feebar am solo. Mhm. yal na yàlla suturaal lépp barke lépp. defar lépp. ba li ngeen di séntu ci li ngeen di def comme li ma daan ñaanal ñu sundur rek. Mhm. yàlla dafa leen ci jàmm. ak taxawaay boo xam ni. Mhm. ku ci ku leen seetlu gis leen ci te it. yàlla defal leen ci jàmm ak salaam ak sutura ak teraanga su nit lu muy def ci àddina mhm. sutura bokk na ci mais surtout teraanga teraanga ci la am na solo ñuy wax ne amin yàlla na yàlla nangu ñaan ni yàlla guddal sa fan wéral sa ay cër yi tamit bàyyi la fi parce que macha allah nit nga koo xam ne ah war nga ñu ngi ñaan yàlla nga yàgg Sénégal parce que parcours bi am na solo macha allah te defe naa ñu mel ni yow ay royukaay lañu ci biim réew ñu toll tey ci jeunesse bi nga xam ne tey sama classe gi war nañu déglu ñu mel ni yow di la roy parce que tamit déglu la ndolleen rek la si doomaadama bi di jëlee yàlla na sa fan gudd yàlla na sa wér gën a yokk njaboot gi gën a barkeel barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu ñëpp ak di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon fi nga xam ne nii moom mooy ci Equivox TV waaye di wax mention Elas bi nga xam ne moom mooy ah, chef monteur bi nga xam ne nii wala production bi nga xam ne moo yore Equivox di ko nuyu di nuyu Xulle di nuyu Cheikh Omar depuis Paris mais Youssou du ma ko faat parce que moom dañuy déggoo chaque jour vraiment li nga wax rek macha allah moom. la gis nga non moom kay. dama fekk <laughs> gis nga kon moom itam amuñu fayam Youssou di sama nit parce que dañuy déggante téléphone. mu ñu jox ay conseils kon li nga wax dèjà. loolu moom daa yàgg ci kër gi baax yàlla defal ko jàmm. amiin ak ay rakkam ndeysaan ndeysaan ak ay mbokk mag lépp dëgg la mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal amin waaye loolu neex na yàlla na yàlla nangu ñaan barke yonent bi que tey li ma sol nii simis bi ak dàll yi ah ko jox depuis marché Colobane koy nuyu wax di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne mais nag kon tamit man damay ñaanal sama couturier de waaw ñaanal ko mooy yoon Oh, da nga ko war a tudd sax ñaanal ko. sëñ Modou sëñ Modou fu mu nekk. sëñ Modou mu ngi nekk euh, rue 11 angle 6 sëñ Modou Ndoye. sëñ Modou Ndoye Medina. Medina grand couturier. rue 11 angle 6. waaw rue 11 angle 6 ndax yow moom léegi nga koy sël ci rolof ku mënta ñaw du la ñawal. non kooku ndaanan la sans compter ñaw sax ak yéene gi. yéene gi. xam nga ak respect bi nekk ci moom xam nga nit la defal teraanga li naan am na teraanga yoo xam ne bañ ko jël sax gën nga jël ko. dëgg la mais moom non seulement da lay ñawal ba pare defal la ko ci yéene. Mm-hmm. te it du ma ko fay dara. ndeysaan kon xam nga ne may defal yéeneen na ma ko. dëgg la maa koy ñaanal yàlla may ko wér ak gudd fan. te loxo bi wér. amiin ndax booy ñaanal téyéer da nga naan moo bi yàlla na loxo bi wér pour ñëw yi gën a rafet pour ñëw a rafet léegi nag man loolu dinaa ci profité am naa téyéer boo xam tamit ku baax la di taal bi sëñ Fallu ñu koy wax rim kaa couture mu nga Touba Sandaga mhm. day ñawal ñu baree bare bare bari loolu moom maa la ko wax booy boo nga wax ko ko fii dina la ñawal yére ñu jox la ko bu soobee suñu borom rim kaa couture yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw te jàppale ko ci jërëjëf